afetat que el ballar que t'ho crim. guitariste nga léegi. ah léegi guitariste ah. maa ngi joué chaque vendredi flamengo. kon sa sa orchestre mu tudd. lambar lambar la <laughs> waa Mbaye. koor gi. incha allah rabi suba bu soobee yàlla ñu bëri bëri xam ne ko mën a jënd ay grosse meew jënd ko tey waaw mbay dante gel bii moom ngay def sa gémmiñ mu jox la fraîcheur de menthe waaw mooy setal say bëñ moo koy neexal xet gu neex waaye moo lay jox li nga xam ne mooy qualité ak li nga xam ne mooy gémmiñ gu ànd ak sécurité bu neex de gel. waaw si bopp moo ko defar. mbay. dama la gis bu ngeen dugg sànq ak sa guitare. daa dee naan sa meew yaa ko daal ji mu ngi nii egg ko mbay. waaw ah. waaw waaw. Ah, soo sonnee léegi deux minutes rek laa def wala une seconde waaw de. mbay. waaw bii mooy vitamine D. van yi. waaw day dëgëral yàq. waaw xale yi moom lañu taamu. Mhm. mag yi moom lañu taamu. waaw soo xëyee xëdd ko. waaw sa xol day féex. te ngay ànd ak cawarte. c'est ça li yu neex ngay gént ay gént yu neex ngay gént. soo maanaam sa maanaam sa xol day féex ba xam ne. mbay. buñ na dog jox na ci dakaar ak li ko wër. boo amee kénkiliba ak café Touba meew lekk koy gunge. lekkana jeex na du am donju da ngay sotti mu seey baax na ci cere baax na ci dog baax na ci xëdd ànd ak croissant ànd ak keek gis nga suukaru koor waaw koo si jox benn bii rek mu sante la yëpp meew xéwal la meew xéwal la mbay waaw madaar bu kër gi tilimee waaw madaar bu kër gi tilimee waaw madaar liquide bu kër gi oose jettol boo daggee ci waañ bi mbay mbay mbay démb la ma gis ñaari oto yu mbëkkante ma ne waa ji ku tooñ mu ne ma déedéet otom mooy xeeñ madaar détergent bi cuuraay bi sama oto nopp otom fóon ko oto bi nga xam ne moom lañu mbëkk oto bi ñu raxasul moo dem mbëkk oto bi nga xam ne xet gi doon gilli ci biiram moo ko topp ba mu ndekete oto yi dañuy nobante c'est <laughs> bonne nouvelle bonne léegi mbay balaa may gëm na waykat dëgg nga ah. nga jël sa guitare gële ah, ah, jël ma sa guitare gële taxawal fi on vous présente Mbaye et le lambar lambar show mbégte contentement bu ma ko ànd ak groupe si boobu ñu indi ñu danti gel l'écran daal di ñëw nag ci koor gi fas yéene gunge incha allah rabi ànd ak xale yi ak mag yi fàttewuñu bu mag yi wooree xale yi ñoom tamit ñu ngi jàpp li nga xam ne moom mooy aromatisé bi di xaarandi dog jot ñu dog ñëpp ci biir kër gi ndax xale yi ndeysaan duñu mën a woor waaye bii dana leen téye l'écran moo ànd ak équipe Kouthia Show di leen may seen émission Kouthia Show li nga xam ne mooy madaar dem ci jetol bii nga xam ne soo daggee moo ci gaaw madaar bi nga xam ne moo ànd ak omo ni mu leen ko waxee léegi xet gu neex liquide bi ak omo bi simple bi ñoom ñoo leen may seen émission Kouthia Show mbokk yi nag ki nekk ci réalisation bi di Alaaji Papa Samba Thiam feggoog toog ci son bi coordination <coughs> Euh, ngeen baal ma Fatima Evans ñu jàkkaarloog seen jiil yi di benn jëmm ñaari caméra ñu am mbégte contentement du tamit yaaw Gervais mbokk yi ñu ngi gërëm nag sous l'égide et la bénédiction de tous les khalifes généraux yàlla may ñu ñu dugg ci koor gi bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu tàmbale di nuyu Serigne di ko ziar Serigne Mountakha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides di ziar tamit sëñ Bay Si Mansour xalif général des Tidiane sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall di nuyu tamit sëriñ Abdoulaye Thiawlaay xalif général des Layen ak sëriñ maam Bou Mouhamed Kounta xalif général des Khadre sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye sëriñ Cheikh euh, tijan Seck xalif bu Cenaba Cerno Bachir Tall xalif Omar Yen Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass ca Léona Niassène Chérif Bounama Aydara ca Nimzat Serigne Mouhamed Lamine Ngom ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu maam Cheikh mbay ca Louga Serigne Mansour Cisse ca piir maam Abdou Dramé xalif bu Nand Serigne maam Abdou Cissé xalif bu Jamal Cerno Madani Taal xalif bu Cerno Muntaga Taal njabootu Cheikh Moussa Kamara ak Serigne Muniru Jegéen xalif njabootu Serigne Amadou Baro Jegéen ñuy ziar tamit Serigne Abo mbake di xalifu seen Fallou Mbacké ziar nañ ko sëriñ Fallou Mbacké docteur ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gën ak wér gu yaram moog jëwriñ Moustapha Sène foofu ca Mboro ñu ngi koy ñaanal sëñ Fallou Mbacké docteur docteur ci Zahir ak ci baatin yal na ko yàlla defal jàmm alaaji Cerno Mas euh, Sama Sa Morabi ca Fouta alaaji Cerno Abdourahmane Bari Waliou Kamin nekk ca Bogol Cerno Hamdou Ah, wan bari nekk ca bogal ñu ngi koy nuyu Cerno Bokar Alpha Ba ca war a fonde Cerno Mamadou Adama Gaye ca ñanka idi Alaaji Mouhamadou Gaye ca Mbour Tefes waaliyu kaamil bi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak waa Mbour yëpp ak Alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu kaamil nekk ca HLM Angle Mousse ak suñu yaay ajaratu Mame Bousso Cissé Serigne Mame Sugu Waadaan ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ñaar fukki fan ci weer koor gi incha allah ca lay woote wootam bi nga xam ne at bu nekk taaliba yi bàyyee ko fu nekk ci àdduna di ko fa fekk moom ñu koy ziare ak papa Awa Kara di Cheikh Adama Niang alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy ziar nañ ko ma ngi ca Gibraltar ak Serigne Habib Gaye mu xaddamu sëñ Mansour Sy Serigne Abdou Karim Mbacke ca Ndindi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak Modou ca kër ga cardinal Théodore Adrien Sarr Monseigneur Benjamin Ndiaye ñoom tamit ñu ngi ndokkale jullit yi ci koor gi ñu tàmbali ñoom pare nañ seen carême ñun nag ñoo jël ñoom ñu ñaanal ci barke Yesu Christa suñu koor gi ñu dugg ci bismillahi rahmani rahim gën ci alhamdulillahi alamin ñu ngi ziara tamit euh, maître Fatima Fall responsable politique nekk ca PDS leeram ca àjjana yu gën a kawe di ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy Serif Kutub Aydara ñu ngi koy nuyu waaye di am mbégte contentement ci imam ratib ah, Thierno Aliou Maska nekk ca Banjul ak sama yaay ajaratu Daaru Cissé alaaji Ibrahima Mbay Xalula ak soxnam ajaratu Fatou Mbay ca Banjul sama papa alaaji Ala Mbay bëgg mbaxal ak doom ja Mbay taaw ba Ibrahima Mbay ca Italie nuyu nañ seen soxna yëpp di leen gërëm waaye di papa bopp di alaaji nekk ca Ziguinchor de président des imams nekk ca Ziguinchor waaye président jàngalekatu arabe yi ca Ziguinchor euh, euh, Alaaji Samba Ndiaye nekk représentant tarixa Tidiane foofu ca Ziguinchor ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram di ko ñaanal jàmm waaye moom tamit toog fa toogaay bu rafet yal na ko yàlla jàppale may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram góor gi Samba Ndiaye nekk ca Ziguinchor ñu am mbégte contentement di nuyu tamit Alaaji Mouhamadou Sall xalif bu Dimisqa di nuyu tamit alaaji Cerno Baabu Nuuru li xalif bu daare xale bi nuyu nañ tamit ki nga xam ne moom mooy imam Xaasum Jaabi nekk ci dëkk bu ñu naan Kandilon ca Casamance euh, di ko am mbégte contentement ci imam Moustapha Sall président des forums intellectuels nekk ci HLM euh, ca HLM Anne Maris ñu ngi koy nuyu ak Cheikh Ibrahima Diop le médiateur social taalibe Sëñ Touba ak Sëriñ Abdou Rasoul Jigal yaay ami Kanji ca Ndar bu ndaw gërëm nañ ko waaye di nuyu tamit Cheikh Baye Mouhamadou euh, Mouhamadul Maktar Ka ak suñu yaay yaay Aïcha Sow umul xaarifiina la nekk foofu ca golfe sud mbokk yi kilifa diine yi daal yal na leen yàlla defal jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bii nekk ak ñun yal na yàlla guddal seen fan ñi nga xam ne na ñoo dëddu àdduna yal na leen yàlla xara ci àjjana gën na kawe yal na yàlla sàmm seen njaboot gi fi bàyyi ñun tamit saras yàgg suñu loxo lool ñu leen di ñaanal kilifa diine yii daal yal na leen yàlla sàmm ñi fi nekk ak ñi nga xam ne dañ fay jóge yal na leen yàlla defal li nga xam ne moo gën ci ñoom ñu leen di ñaanal ndax ñoom nañu am ñoom ñooy suñu kilifa ñoo ñu teg si yoonu siraatal mustaqim di leen ndokkale tamit di leen ñaan koor gii ñu dugg yal na yàlla bàyyi kilifa diine yëpp bu kenn bañ a manqué a dem nag yàlla xare leen ci àjjana yàlla may ñu lépp oyof ci ñun ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin léegi nag xam nga fu ñu jëm dañuy seeti alaaji Iyane Thiam président commission linéaire bu bu bu weer bi ndax tey ci alxames bi weer ba dana feeñ am déet ndax xelam ma ngay ànd ak moom ba tey ndax góor gi bëtam yaay a ngay leer ba tey macha allah ñu xooli iyaan ca ca jàng ga ak ca leeral bi nga xam ne moom lay leeral askan bi jëmale ci mbir yi jërëjëf jërëjëf jërëjëf xale yi jërëjëf jërëjëf jërëjëf na ngeen def alhamdulilah jàng du wees bisimilah laay bisimilah bisimilah ah bisimilah ah bisimilah kay comme que dañu leen woo journaliste yi pour ngeen lijjanti ndax ba tey ñun ñu ngi ànd ak suñu xelam déet ndax ñu ngay jàng lu ñu waru jàng lépp dana leer jërëjëf jërëjëf waaw na nga def waaw na ngeen def alhamdulilah na nga def ak coono macha allah alhamdulilah alhamdulilah tabaaraka alhamdulilah tabaaraka allah jàmm rek naka coono yi kay waaw alhamdulilah de daaw yaa fi ñëwoon euh, waaw man na woon waaw kay waaw kon tollanti ko ren jërëjëf tey na dañoo ñëwaat euh, pour xool waaw parce que gis nañ ne tout le temps yow yaay xool euh, croissant lunaire ba xam feeñ na wala feeñul waaw defaa defaatale test ndax at mu jot yow la ñuy def euh, président commission bi. waaw ngay xool weer wi ba xam feeñ na pour ñu woor ba xam weer wi feeñ na pour ñu wor wori. waaw léegi nag comme boobu ba léegi at dox na ci diggante bi. waaw foog ñu ñëw xool ba xam say bët mu ngi neex ba léegi. macha allah mën a gis weer ba léegi fa kàlla macha allah. voilà ci test boobu la ñuy fas yéenee dem. waaw waaw dinañ ci dem nag bu baax a baax. defe naa damay def nii tableau bi. waaw. comme ça nga jàkkaarloog bi. quatre questions lay doon ah. waaw. première question. waaw. day am deuxième question am troisième question ak quatrième question. waaw. première question danga nga naan présent. présent su ma nee Mourchid Iyane Thiam nga ne présent. Uh-huh, uh-huh. Mourchid Iyane Thiam. Uh-huh. Mourchid Iyane Thiam. waaw présent maa ngi fi. première question mooy weer wi. waaw bu fekkee da ngay séntu weer. waaw weer dañoo bëggoon a xam ba xam noor lay feeñee. wala est walla ouest walla sud est ouest nord wala sud waaw ñeenti xibla yi fan la ci weer wi di feeñe boobooy suñu première question wala neexee mën nga koo jege tamit xool weer bi fi mu fanaan mën naa faa bañ a yeewoo mën naa yeewoo fi mu fanaan waaye mën naa bañ a xëyee fi mu yeewoo ndax xam nga ne ñeent yi benn bi mooy penku waaw benn bi mooy sow waaw benn bi mooy bët saalum waaw benn bi mooy bët gànnaar waaw ñeenti yooyu waaw diggante sow ak penku waaw ak bët gànnaar ak bët saalum fan la fa weer wi di feeñee bu jugee sow kay day dem penku fi muy fanaan du fa yendu mu ne mel na nga jóge sa kër rek dem liggéey guddi gi départ dellu sa kër fii mooy këram penku waaye fii lay yen fii lay yend bu xëyee fanaan fii dëgg la noonu la d'accord merci beaucoup ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax waaw defe naa ne bii moom réussir nga ko waaw jërëjëf mën nga dem toogaat Mourchid Iyane Thiam waaw maa ngi présent ngay wax présent ok deuxième question waaw mooy ban temps temps nuageux wala temps orageux wala temps pluvieux wala temps pluviométrique ci nga mën a gisee weer maanaam moo xam dafa niis wala day ngelaw wala muy taw wala mu xiin ndax temps yooyu yëpp mën nga cee gis weer ak ban waxtu nga ci mën a gis weer. muy bu dee asamaan si dafa lëndëm. Mhm. bu lëndëmee nii kurus diggante timis jàpp gee. Mhm. pour nga gis ko dafay jafe. Mhm. waaye bu demee ba nga xam ne mu ngi génn génn benn fan day mel na banaana bu ndaw est-ce que mën nga ma ko dessiner fii dafay def ci suuf nii nii lay def nii lay def ab nii rek kell bu ndaw boobu ma ngay soog a génn boo ko xoolul nag bu fekkee dafa lëndëm nii fii lëndëm doo ko gis ndax taxam day nekk nii nii lay nekk mais dafay mel ne loo dul gis waaw day def ab reetaan bu ndaw daal maanaam ree maanaam daal ree bu ndaw wala sell mbeer day mel ne rek nga daa dee bàyyi ba wal fajar gi mhm. nga jël wuñ bu weex bu sew mhm. ci lëndëm gi daal ko ciy teg xam nga danga ko seen waaye pour nga gis ko foo mu lëndëm pour mu mun a feeñ macha allah bu baax a baax Mourchid yan Thiam. maa ngi. présent présent. ok euh, sa troisième question mooy. waaw bëggoon nañu xam yow mi nga xam ne yaay faral di séntu weer wi ak ñi nga àndal pour nga mën a gis weer dëgg-dëgg. waaw ban régime alimentaire nga war a adopté maanaam sa lekk lan la war a doon yan façon lekk nga war a lekk pour nga war a mën a lekk gis weer ndax am na ñoo xam ne mënuñoo gis weer. waaw carotte tubaab bi dañ koy wax docteur yi nee nañ carotte day leeral bët. dëgg la nawet. nawe nawe nawe nawe mooy lu day leeral bët waaye ab jullit dëgg da roy ci saxaba yi ah, ak yonent yi um. tus ngalu da tus ngalu ci kaw tus ngalu ci soof mu ne yàpp ku la gis xam ne loo seen dëgg la waaw bi nag aajuwul ndax mun ngaa te doo gis weer ah. mën ngaa xiif gis weer loolu xam naa da nga ma bëgg a dugal sa. question piège la kay waaw parce que tout simplement. bu fekkee wóoragoo. waaw xam nga yaa ngi séntu weer pour dugg ci koor. waaw mais booy séntu weeru korite. waaw xam nga ci biir kor ngay nekk. waaw moo tax mu posé la question. moo taxit tontu naa la. Uh-huh. tus nga lu rek mu leer. waaw. <laughs> dafa naa ne bu ñu totaliser say points. waaw yaa ngi ci 19 sur waaw benn point moo la dese pour nga admis. waaw léegi dernière question bi Mourchid. waaw dama bëgg yow question bi ci boppam. waaw yow nga génne ko. yow laa bëgg nga génn question bi maanaam suggestion lay nekk lan nga bëgg ma poser la ko fii. ah xam nga dañuy wax ne ñun suñuy bët neexatul. dañoo war a saase xale yu ndaw yi. Mhm. te seen tub weer cosaan la. dëgg la ña ko doon def ba tey ñu koy def. Mhm. nañu yàlla may fan bu gudd rek. ngeen ñaanal ñu ko. fekk ñu ngi am fan bu gudd. xel mi jubéewu fi. léegi dama bëgg nga téye lii. waaw. bindal ma fii deux. waaw bindal deux fii deux. ñaar bu dee benn da ngay def nii tegaat beneen. yow léegi xanaa chiffre la. da ngay wàññi. ah ba ngay xam nga ki jàngul tubaab boo defee deux du xam. Mhm. waaye boo ne benn ngi nii ne ñaar day xam. Mhm. boo ko boolee muy benn ñaar. waaw. foofu laa doon xaar. waaw beneen bi mooy. léegi nag ñu ñëw ci question yi nga xam ne jàkkaarloo lay doon. waaw léegi dama bëggoon nga wax ma. waaw baaraamu loxo ñaata lay euh, loxo ñaata baaraam moo ciy nekk. loxo. Hmm. bu ay loxo la. fukki baaraam a ciy nekk. Uh-huh. bu benn loxo la. waaw juróomi baaraam. léegi dama bëgg nga wax ma instant bii nii. waaw baaraam laa la woon. yaa ngi ma woon benn baaraam. Mhm. ñaari baaraam. Uh-huh. ñetti baaraam. baaraam nga ma won uh-huh. waaye da ma maa tàllal ñeenti baaraam. Mhm. su may xool maanaam ma doon séntu tey dama naan weer baa nge ne ci diggante potu lamp bee ca kaw. Mhm. waaye ca suufu potu lamp bi sa bët bu awee ca kaw am na lu nëbbu ca suuf maanaam nuage bi. xiir mi nga xam ne xiir mi nga xam ne moo nekk ci jaww ji ci nga ne weer baa ngee ci suufu xiin bi ñeent baaraam ngi nii benn ñaar ñett ñeent nga laaj ma ne ñaata baaraam nga ma wan yaa ma wan benn ñaar ñett ñeent moom nga ma tàllal mhm. waaye nekk ci suuf tamit ay baaraam lañu ko ko boolee nag muy benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett <laughs> félicitations félicitations. kay macha allah. waaw euh, jàpp naa ne. waaw Sénégal gépp mën nañ kontaan ci yow. waaw Afrique mën nañ kontaan xanaa kay. waaw dañ lay ñaanal yàlla guddal sa fan. waaw yokk sa wér. waaw waaye Sénégal. waaw yéen ñu bëggoon di lakk weer ndax dina feeñ wala du feeñ. waaw kii lu mu leen ci wax rek. jàpp leen loolu moo taxit. dama ne la ñaar ñoo am solo. Uh-huh. deel tusngalu. surtout tusngalu. ma ne dee leen tusngalu. ndax booy tusngalu. lépp lu lëndëm dana leer doom tus ngalu ca kaw tus ngalaw ca suuf mooy tax say bët di leer mhm. tus ngalaw ci suuf tus ngalaw ca kaw day leerali bët. waaw tuus ngelu ca kaw. waaw tuus ngelu ci day leerali bët. waaw tuus ngelu ci kaw. wax man yow laa seet def mag yow la mag yow la yàlla moo ko def mag yow la am nañu mbégte ak ma mag ànd ak apporte une haleine fraîche, mentholée, blancheur et protecteur des dents recommandé durant le ramadan pour une fraîcheur euh, toute la journée waaye tamit ñu ngi nuyu Mor Lay PDG sunu business point TV ñu ngi koy ñaanal fan bu gën a wér gu yaram waaye tamit di am mbégte contentement bu mag ci famille ma sekk Euh, Amina Niass ñoom Badiane Fatou Ndiaye Badara Tall Ndeye Penda Thiam ca HM6 Assou Ndiaye ca Istanbul Maguette sekk ca France Idia Fall xaritu euh, Yaxara nekk ca Anne Marinas ñu ngi koy nuyu ak les de valeur ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement di ànd ak ñun di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne nag moom mooy euh, monsieur Lamine Touré responsable politique nekk ca PDS bu Guinguinéo ñu ngi koy nuyu waaye tamit di nuyu tamit Maman Diop nekk ca Kaffrine Rama Ba nekk ca Kaolack de la part de Sira nee na mu ngi nuyu Loti Sow ak Zakaria Sow foofu ca Kaffrine di am mbégte contentement ci Awa Ndiaye madame Sow waaye tamit daayira fit yaa nul siddi xiin de ginnaaw raay treizième édition gàmmu bi wax nañ leen nag ki nga xam ne mooy Cheikh Fodé jaxate nee na mu ngi dellu du tàyyi di gërëm ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadoul Mahi Cissé ak Cheikh euh, Ahmed Boukar Niang bi nga xam ne surtout bàyyi la euh, soxna Seyda Nafisa ñas ñoom ñëpp gërëm na leen soxna euh, Asi Kan doomu Seyda Mariama Niass Aliou Diop surtout Papa As bu Baye Niass Seyda Oumou Kalsoum Fall soxna euh, Cheikh Ahmed Boukar Niang ñu ngi koy nuyu waaye tamit euh, di am mbégte contentement bu mag euh, di ziara képp koo xam ne mooy seetaan émission Kouthia Show madame Thioy docteur la et sa fille nekk ca Maris bébé Ibrahima ñu ngi koy nuyu waaye tamit di nuyu képp koo xam ne nag yaa ngi seetaan émission Abou Bilal di nuyu tamit madame Ndong Amina Ana Ndiaye ca Parcelles Assainies soppay Kouthia la de la part de madame Diatta ñuy am mbégte contentement ci Balla Diop chéri Mame Diarra Mbodj maam jaara Mbodj nag ñu ngi koy nuyu moom mooy yaayu Moustapha Diop Balla Diop di baayu Moustapha Diop waaye tamit ñu nuyu Diarra Diop moom tamit soxna la ci Balla Diop ñu am mbégte contentement ci sama soppe bi nga xam ne mooy maam jaara Mbodj di ko nuyu tamit ak raxam bu ñu naan Neymar <laughs> benn xale bu ñu naan Neymar Neymar Mbodj xale la boo xam ne mooy doon futur Neymar ñu ngi koy nuyu ak ñoom Mamadou Mbodj ak Madické euh, Soumaré xale bi 3 ans la am ak Serigne Fall Soumaré ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu de la part de Mame jaar Mbodj Chéri Balla Diop ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di am mbégte contentement ci képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show rawatina nag béy di dem le noble nekk foofu ca euh, dëkk bi nga xam ne moom mooy Ouest Foire conférence religieuse samedi la mosquée de Euh, yëmbal ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp amicale des jeunes mosquée de Darou Salam 1 ñoom parrainage bi Kouthia la ñu ngi koy waxtaanee ci tem bi nga xam ne mooy l'islam face à la crise des valeurs conférencier bi nag mboolem imam bu nekk ci quartier bi di nga ci yëkkati kaddu daal di ko ci jëmale ci conférence boobu nga xam ne mooy am samedi le 19 le 19 mai 2018 euh, waaye di am mbégte contentement bu mag ci woote liggéey clôture université islamique de Touba ci ndégalu sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké ak sëriñ Amdi Khadi Fall xalif de sëriñ Assane Fall jullit yëpp ñu ngi leen di woo maçon frère menuisier ouvrier ak bonne volonté yëpp ñëw ci liggéey boobu nga xam ne ci ndigalu sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké la te sëriñ Touba ku mu woo ci liggéey boo ñëwee mu fay la rawatina maam Cheikh Ibra Fall nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci woo borom doole kattani ak borom wërsëg yi tax ci àjjuma suba incha allah dina am ndog yoo xam ne dana bàyyeekoo kër sëñ bi dem kër xalif général bi nag ci bépp xalif bépp sëriñ bu nekk ci euh, foofu rek ci ëtt Touba ak Diourbel ñoom dañu leen séddale ndogu ndëgeel ba nag jóg na ci sëriñ Amdi Khadi Fall xalif de sëriñ Assane Fall mooy woo taalibe yi kenn ku nekk nga dugg sa loxo ak sa doole ay ginaar ak ak ay gëléem nag ak lu ne nañuy togg waaye ña koy lekk ñu koy togg ñoom sombi nañuy ndogoo loolu mooy wane nag mbir bi am na baatin ci biir ñuy nuyu itam bu baax maire Ami Diop sopp Kouthia ca Pikine ginnaaw raay ak ki nga xam ne nag mooy Seynabou Diouf soxnay Baye Fodé Diakhaté la ñoom Ara Diouf nekk ca Pikine ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement mbokk yi xam nga fu jëm ña nga jëm ca Abu Bilal bi nga xam ne ci waxtaanu koor ci yoor yooru koor bi nga xam ne nag euh, tey boo xoolee mbokk yi am na ñoo xam ne nañ koy séntu séntu ba njëkk ba ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bëgg a xam lan ak lan ak fu ñu war a jaar ñu ngi leen di wax ne conférence bi tàmbali na fii nga xam ne mooy ca conférence njëlbeen alaaji abou bilal ci waxtaanu koor mbokk yi ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag di am mbégte ak contentement bu mag ci waxtaanu koor ci yor yoru koor su ko defee waxtaanu koor ci yor yoru koor sama ingénieur bi nga xam ne moom mooy toog nga may ma tuuti toq ci son nga xam ne dana jël yaram ba daal di koy tàngal jëlee ko ci suuf yokk ca kaw bu ko defee waxtaan bi gën a mën a yaatu maa ngi fii ci yaraax ci taalibe yi nga xam ne ñoom dañu ne oustaz Abou Bilal bu koor gi tàmbalee moo leen di wax li nga xam ne nañuy toogee ak ni ñuy defee moo taxit tey ñu ngi gërëm képp koo xam ne yaa ngi séntu li nga xam ne mooy koor gi suba mbokk yi na daaw am na ñoo fi ñaanaloon ci koor gi ñii am borom kër ñii am tamit soxna loolu dana firnde ci kanam tuuti ndax am na taalibe yu ñëw ti pour indi seen témoignage jëmale ci li nga xam ne moom laa leen ñaanaloon da ngay jëm nag ci ay élection présidentielle su ko defee candidat yi nga xam ne dañoo bëgg falu ci réew mi te bëgg toog ci réew mi ak ñi nga xam ne dañu bëgg tollanti ku ci wóolu alaaji abu bilal alxatami bu sobe yàlla yàlla dina la defal lu kawe sa njort pour ngeen xam seen sëriñ wóolu ko il faut ngeen xam seen sëriñ fan la jaar abu bilal alxatami maa ngi bàyyi ko dëkk bu naan Qurayshin ca bët gànnaar Israël ca Palestine ba may nekk tuut tànk am ñetti weer ca la ma benn gëléem daade jël su ko defee waxtaan bi nag dañu ko décentraliser ibbi téléphone yi ñi nga xam ne dañu bëgg a gindeeku ci seen oustaz ak xam seen oustaz bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ñu daan koy dugal mu laaj ñu tontu waaye nit ñi tamit tontu laaj jëmale ci li nga xam ne mooy Abou Bilal ak jaar jaaram asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum su ko defee ligne bi moo jàpp allo waa kooku kan allo kooku oustaz Abou Bilal. waaw oustaz Abou Bilal la kay na def. allo. waaw maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg soxna si. waaw. oustaz Abou Bilal yow xam nga ne man yow laay wër suba ba ngoon mënum tëdd. ah de wax dëgg yàlla soo may wër gis moo def conférence boo ma gisee boo tëdd. waaw man Kiyasou Diop lañ may lañ may woowee. ma dëkk ba Mbour. mais présentement nii maa ngi Dubaï. yaa ngi ba Dubaï di ma woo. waa Dubaay laa lay woowee nii yàgg naa ci ligne bi torop. alhamdulilah alhamdulilah waa soxla si na ne tur bi nan la. ma ne Kiasu Diop ca ah, Dubaay laa lay woowee nii ah, yaa ngi dëkk ca Mbour Géej. ah macha allah macha allah. lan mooy sa soxla lan moo sa soxla. waa sama soxla mooy gis vraiment sa émission neex ma. man daal euh, ma xool sama génération daal neexuma man daal oustaz ma xool la macha allah nga neex ma torop ma bëgg la def borom kër. Eh, uh-huh. Uh-huh. waaw loolu day wax dëgg yàlla fi nga ko tàmbalee baaxul ndax ci weeru koor nañu nekk te weer la boo xam ne bëggeel diggante ñaari jëmm daal dañ koy aj ba ñu wari te fi nga ko tànnee wax dëgg yàlla du bërëb bi. ndax am na cofeel ah? boo xam ne boo ko amee ci nit yaakaar naa ne da nga ko waroon teel a wax. ma ne da nga teel a wax fu mu ne nii moom bëgg lépp. aj ma ne ma ne oustaz. balaa ngay wax. balaa ngay wax xaaral boo ko gis ma ba pare. ak noo ti mel ak noo munti mel sama demande. dama ak noo munti mel. ak loo munti mel ak loo munti yor man loolu du yàq sama koor. man da may damay dem ak ñëw war naa ñëw Sénégal sax. waaye ma ne la ak foo munti jóge laa wax man loolu mënul yàq sama koor. soxna si. soxna si. oustaz teel ngaa décliné. waaw waa ne soxna si. waaw bu fekkee wax dëgg yàlla da nga bëgg ñu waxtaan waxu mbëggeel moom dañ koy aj te nga bàyyi waxtaan boobu laaj li nga xam ne moom nga bëgg ñu ñaanal la ci waaye lii ngay wax nii man intéressé wu ma li xale yi naan lii ma wax dëgg yàlla lii farajuma. farajuma mais oustaz man mënuma loolu depuis maa ngi lay woo tey laa am chance jot la. waaw kon nga seet beneen oustaz waaye man doxuma ci loolu. non balaa ngay balaa yow balaa ngay wax bàyyi ba ñu jàkkaarloo. waaw bu soobee yàlla ak ak boo ah, ñëwee rek. boo ñëwee rek waaw boo ñëwee ñu jàkkaarloo. boo ñëwee nga xam ne ak noo munti ne man mun naa jàkkaarloo yow te dara du ma yëngal. mais baax na ko booba su may ñëw dinaa la indil valise. bu soobee yàlla ñu ne xam nga man ci ci kii laay dox. ci teraanga laay dox te man gis naa la bëgg naa la. waaye oustaz boo ko xasee ba nekk da ngay dëmmu taaraanga man teraanga àdduma taxul ma weeraate man nammuma dara. man oustaz na mu ma dara. man daal xamal ne yow laay wër ci bu ma ñëwee Sénégal cëpp balaa may wàcc fenn ci yow laay ñëw directement. baax na ñu ngi lay xaar bu soobee yàlla ñu ngi lay xaar. ñu ngi lay xaar ñu ngi lay xaar bu soobee yàlla. incha allah waaw eh, jërëjëf jërëjëf. taalibe yi ànd leen ak dal baax na baax na baax na baax na am na ñoo xam ne dañuy dugg sa émission pour jéem laa yàq xool ndax yow mbiru caaxaan danga ci ciy dugg su ko defee soxna Sayda Bintu Thiam bi ñu yëkkati ko ci kaw ñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy jaar-jaar yi bi nga xam ne dama nekk tout tànk am ñetti weer daa nekk ci àll bi nga xam ne man kese maa fa nekkoon ak ñetti gaynde gaynde yi toog nañu ñaari at gisuñu ndawal lekk ñu lekkuñu naanuñu benn gaynde bi bu mu gisee sama jëmm ji dafa wax beneen gaynde mi nekkoon lii xéewal la xolal xale bee ñu gis ci digg àll man ndinkii bi benn gaynde bi ne ko man maa koy lekk keneen ne ko déedéet man ak sama soxna ñoo koy lekk ndax yow ñoo la jur ñetti gaynde yi bi gaynde yi dem di xëccoo pour dab sima boobu maa ngi nekk xale tuut tànk am ñetti weer ñu daa dee daw daw daw daw daw di ma xëccoo ba egsi ci man sama jëmm ji nga xam ne mooy abu bilaal sama nopp yi daa taxaw ne eh yéen bàyyi ma yi nga xam ne ay gay ngeen kii tëdd nii mooy ki nga xam ne mooy abu bilal ay boolen leen ko xamoon doo leen ko jege gaynde bi daa dee tàllal làmmiñ bi commencé di malastiku di melastiku yaay ji ne ko maa koy lekk doom ji ne déedéet maa koy lekk baay ji ne maa koy lekk ma daa dee fëgg sama dënn boobu maa ngi am ñetti weer daa di leen làkk ci arab ne leen zalakal baanakal wula xamsa riyal bakalal wula anta barikal maala ba suulikal buuli balaa may egg ci buuli bi ñoom ñëpp seen bëñ daa dee wadd gaynde yi jaal gaynde yi dañ maa yendoo mar dañ maa yendoo mar mel ku ñu dugal ci teen ma tooy xet kon ñoom mënul ma dara bu fekkee am na ku ne ci ligne bi mu daa dee dugg ñu waxtaan ak moom ci laaj bi muy laaj allo allo waaw allo Oustaz Abou Bilal waaw yow la kan ah Oustaz Abou waaw. allo. waaw ñu ngi lay dégg. Oustaz Bilal. waaw ñu ngi lay dégg. ah man Mati. waaw waaw soxna si la doon soxla. wa naan sukran sukran. ah sukran ah sukran sukran yow de subhana man xad. an batak. ay nii bi man sari. war fajru faaxa bi nasratik وصبح بالله وأجنتك أستاذ أبو بلال شكرا والله والله والله والله والله والله والله والله walay walay moom de li muy wax nii jigéen bi woote cofelem lay wax ci man nee na bu gisee sama jëmm ji ci télé gi day tàggoog sagom mm-hmm. waaw loolu sa mm-hmm. soxla. Oustaz Abou Bilal waaw. man dama la waa waaw bàyyil jooy yi bàyyil jooy yi loolu day am waaw dama la bëgg sax. jaru ko jaru ko bàyyil jooy yi man nit ñi bu weeru koor jotee dañuy taxaw di seetaan asamaan si pour gis weer mais man yow xool gis la mel ni yaa nekk ci weer bi oustaz Abou Bilal. macha allah oustaz Abou Bilal. waaw. ku nekk li nga war a joxe sa suukaru koor. lan nga ma bëgg jox suukar koor nga ne. man daal oustaz oustaz Abou Bilal sama xol bi laa bëgg a génnee jox la ko mu nekk suukaru koor nga bëgg ma bëgg bu dul denc àdduna lii laa bëgg ci yow. macha allah macha allah macha man su ma déggee olof grâce à yow pour bëgg a jàkkaarloo yow mën a wax ak yow nga dégg ma. soxna si. soxna si li la dal moom nattu la. wax dëgg yàlla dama la koy ñaan nga muñ ko rek ba ñu wari. ndax comme que dañu dugg ci woor te koor gi moom dañuy aj lépp loo xam ne bëggante la. bu ñu waree ba ñu wàcce ko dinañu mën a toog waxtaan waaye wax te bii wax dëgg yàlla mënumaa jëkkati sama kaddu àdduna yëpp li ma dégg nga may déclaré may nangu boobaa matadi moo may def te bu ma matadi may loolu du baax maa ngi koy jéggi jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf mënu ma cee sori mënu ma ci sori génne ko ci ligne bi mënu ma ko ci sori mënu ma ci sori jërëjëf jërëjëf jërëjëf yooyu day am yu mel nii dafay am yu mel nii dafay am da ngay waaraate ba si yàgg am jigéen ju bàyyeekoo ci gédd gi daa day ñëw daanu leer su ko defee dañuy continuer waxtaan bi ci waxtaanu koor soxna Bintu Seyda nañ ko yëkkati mu dal samay nopp su ko defee ñu daa dee waxtaan li nga xam ne moom mooy waxtaanu koor ci yor yoru koor ànd ceeg taalibe yi nga xam ñoo nekk ci diggante Dalifor ak Yaraax di leen xamal ne waxtaanu koor ci jaar jaaru Abu bilaal moo gaynde ya ba ma gaynde yi jàppee daal di may mar ba ma tooy gaynde yi jël seen geen di ma ko dóor yaakaar ne bu ma sonnee danañ ma mën a jël di ma mar ba mën maa jëriñoo walay walay boobu maa ngi am ñetti weer xoolal bi ma amee ñetti weer may làkkante ñoom ci ara ba seen ay bañ wadd mënuñu dara ci man loolu di ma mar walay di ma mar boobu jaam ci boppam mer ma génnee ci benn xur naan Palestine jaan baa ngi toll ni monument bi nga xam ne mooy monument indépendance jaan baa ngi toll diggante Thiès ak Pout jaan baa ngi toll diggante Sandaga ak place de l'indépendance jaan ba boo koy natt mën na téeméeri mètre ñaari bopp la am bopp ci kanam bopp ci ginnaaw kenn mënu koo rëcc jaan bi daal may xool am na ku ne ci ligne lañ ko dugal mu dugg ci ligne bi allo kookan la allo waaw salaamaaleykum allo waaw maa ngi lay dégg salaamaaleykum waaw eh, abu oustaz abu bilal waaw oustaz abu bilal mooy waxtaan ak yéen ci wàccaay gi waaw daa am benn eh, musicien la waaw musicien nga Arma tudd Arma Ndiaye ah nga tudd da way waaw damay woy man daal dama bëgg mel ne ñoom Pape Diouf ak ñoom Waly mais man daal dama mën a woy mais dama bëgg daal nga def ma woykat bu mag sama baat bi daal dafa naqari. sa baat bi dafa naqari nga bëgg a woy kon ñom Pape Diouf. waaw sama baat bi daal moom fu ma yuuxoo rek ñëpp daw. looy woy ci diine ngay way war a ci caaxaan. ma ci diine ngay woy war a ci caaxaan. xaaral. eh. am nga chance bi ma wooyee. ah Bilal oh, oh, oh. ne sa baat bi dafa ma xari ma ne eh may dégg. waaw maa dégg. waaw yàlla may na la chance bi nga wooyee fent way jëmale ko sama jëmm ji. man xam lu ma bëgg dama bëgg. waaye bu nekkul woon sama jëmm ji ngay way. bu nekkul woon sama jëmm ji ngay way. waaw sa baat bi danaa ko yàq ba mu mel ne garangaal. léegi xam nga lan nga bëgg nga neex. neel yaa abu bilal neel yaa abu bilal. ba. tuuna. zaa. wa boole. wa boole naa. wuuna kal wuuli. wa tabal wuuli. allah. baat ba changé na ay ca wayal wayal wayal wayal laa ilaaha illallaah utaqabu bilal mi mooma yem laa ilaaha illallaah man de al xatami mooma yem laa ilaaha illallaah تزكى لك الولاء الترك الملاء سلام وسلك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله macha allah macha allah macha allah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf gis ngeen ko baat ba dafa naqari woon ñu far koo def baat ba neex ni lem xam nga ne kii ba muy commencé baat ba kon xorom polle ñu mujj koo def mu nekk nag lem bu sooy xëpp daa dee neex su ko defee Abu Bilal ci ay kiraamam fexe na ba ko nga xam ne baat bi dafa naqari fexe mu neex ndax jëmm ji góor la waaye baat bi yëkkati baatu jigéen la kon soppi naa baat ba def ko baatu jigéen loolu ci kiraama yi gën a ndaw yi may def la est-ce que xam ngeen na man damay maye jigéen damay xool góor ba mu neex ma ma xam ne góor bi ci giiru dundam du am jabar ma soppi ko def ko jigéen mu sëy fekk naa garab bu mango bu dem ba màgget mënatul am mango borom kër gi na ko da koy toj def ko ay mat ah. ma ne ko déedéet bul ko rey ah. mu na ma lu tax sama mango la maa ko moom fukki at ak ñaar mu may jox ay mango mënatul jur ay mango dama koy daaneel def ko matt ma ne ko déedéet mu na ma lu tax déedéet ma ne ko may ma ma wax ak garab gi waa ji sëgg di reetaan ma ne ko looy ree mu na ma nit mu mënul wax ak garab ma ne ko ah mu ne ma nit mënut a wax ak garab ah, sama technicien bi Pape Samba Thiam ma ngi may dee dara nee na ma nit mun ta wax ak garab ma ne ko lu tax nga ne nit mun ta wax ak garab mu ne ma soo waxee garab bi tontu la ma bàyyi li nga bëggoon def ma ne ko ay ayca su ko defee ma daal di leen wax fan laa jëm ak garab gi sama technicien bi yokkal ma son bi ma daal dee sëlmuwaat jekk-jekkal toogaay bi ñu eggali waxtaan bi nga xam ne waxtaan naa ko garab gi te borom garab gi teew wa zalakal wuula tarikal muuli haana balakal wuuli anta barikal waala malakal wuuli wa zalaka ba mooy dentigel ànd ak l'écran ànd ak li nga xam ne mooy madaar ñoo leen may seen émission Kouthia Show dentigel ci bëñ yi l'écran ci ndogu li ak ci xëdd li madaar ci setal kër gi ba nga mën a noy environnement bu neex mbokk yi ñoo leen may seen émission Kouthia Show ñu ciy ziar di wax ndokkale joyeux anniversaire à Kadiatou Sow bés bi moo dellu si muy le 16 mai 2012 ak njabootam yëpp ñi sant Sow ñoo koy souhaité happy birthday santé de fer prospérité et bàjjan bi nga xam ne mooy bàjjan Fat Sow depuis Gabon ak ki nga xam ne nag moom mooy Jo Mbuub Josephine Mbuub ca TFM ñooy souhaité Xajatu saw mii di ko ñaanal fan bu gudd ak wér yaram di ko souhaité joyeux anniversaire ñu koy ndokkale tamit ci anniversaire am boobu waaye tamit di ndokkale ki nga xam ne moom mooy magu Yaxara Njaay di def anniversaire am tey ah dañu fàtte jël tur bi waaye dinañ ci bantuwaat ñëw ko di waxaat tamit joyeux anniversaire à Fatou Diouf élève au lycée El Hadji Ibrahima Diop da Yëmbal ñu naan ko Ceena ñu koy nuyu tamit toute la famille ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire Yacine Sène Djeba Balde Mamadou Diallo ak Ndiaga Bari ñoom Ndiaga Fa euh, Matar faati Fati Lay Fatma Fall Awali Khady Diop ak Mati Ndiaye maam Diarra Bodian et tous les élèves de la classe première L2B et toute la famille Diouf depuis yëmbal ñoo koy souhaité joyeux anniversaire rawatina yaayam Mariam Sall mbokk yi ñu ngi ànd ak ba tey ci waxtaan gi. su ko defee ñu ànd technicien bu yàññ bi di alaaji papa samba Thiam nekk ca réalisation ba ca buumu xarala ba feggoog toog bi nga xam ne mooy xëcc son ba sànni ko ci jaww ji mu daal di wàcc seen nopp yi ngeen mën koo déglu ci ndimbalu xarala bi nga xam ne moom mooy caméra yi moom borom bët yi nga xam ne mooy filmé yaaw a gerva nga teew waaye sëñ jili jàkkaarloog ñaari jëmm yi di filmé ci coordination Fatima soxna Seyda Fatima moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram ca coordination ba mbokk yi maa ngi tolloon fi nga xam ne mooy borom garabu mango bi borom garabu mango bi ci boppam moom mu naa dugg bu fekkee ne am na ku ci ligne bi borom garabu mango bi dama eh damay gor garabu mango bi ma ne ko déedéet. mu ne ma lu nga ne déedéet ma ne ko garab bi ci boppam deewagul mu ne ma garab gi ñaari at nga nii amatul mango ma ne ko may ma wax ak garab gi daa dee xool garab gi garab gi xool ma ma ne ko ee eh, garab ci arab ma ne ko salakal wala fa baamatul kul salaamalakal wuuli garab gi daa dee gësamu garab gi daa dee gësamu ma jàpp ci ndigg garab gi ne ko mango mu ne ma naam yëngal bopp bi ma ne ko zaanakal baanakal wuulakal buu ba ma ne buu ca la xob yi commencé génn naan batar ku fekkee am na ku ne ci ligne bi bàyyi leen ko mu dugg salaam mbadda jam tan omba ko eh, El eh ko min dalanda diallo a dalanda diallo lo bëggoon e eh, abou bila mi noddima an mi tampimi e eh, jarama eh, kay jarama alhamdoulillahi alhamdoulillahi e harama lako wolofu wa waxal olof su ko defee ñëpp harama wax wolofu e elaaji abou bilal yaa ngi fàttaliku daaw yaa ngi ma ñaanal fii maamu jëkkër ah yow yaay soxna dalanda diallo bi dëkk foofu dalanda ko min ma ñëw may leen ko tuuti may leen tuuti may leen ko tuuti waaw alaaji abu bila waaw man ni sant naa yàlla daaw yaa ngi ma ñaanale fii ñaani bu baax waaw maa ngi de maa ngi am na jëkkër ah léegi am nga jëkkër am naa jëkkër alaaji abu bilali amula jëkkër ah jëkkëru lan nga am olof wara ustaas eh alaaji abu bilal suma jëkkëri bi soose la man ah. déggul soose man am naa wujju suma wujju mu ngi soxor mu ngi soxor man déggul soose man bëgg na dégg soose ma ma dem togg ndogu weeru kóor bi ñëw na aa sa jëkkër soose la te yow déggoo soose pël a fuuta nga te maa la ñaanaloon nga am mhm. jëkkër léegi la nga bëgg mooy dégg soose waaw dinaa la ko jàngal léegi ci ñaari araf nga mel ne ku juddoo ca soosa ya alhamdulilah waaw léegi da nga may déglu de ak nopp waaw wasalakal wuula la barka wuula wala wuula lakasalu wuu soose soose ah, ah, mandinkoole lakkal lakkal lakkal lakkal ah? ngo Eh, eh alhamdulillah nga moyle nga mandika ka moyle ye mi ka futu wala nke ma yala sa ni eh, abu bilal alma si ma yala he eh, abu bilal alma kende yala alma si ma yala njaati kende ya duniya banko ono duniya tonko nano be alhamdulillah abu bilal sele nga mandika ka moyle nka manika kan do ne fa fambi ka kan ko dem fana mangi manika kan oti alhamdulillah na manika kan moyle alhamdulillah woy woy alhamdulillah woy alhamdulillah manika kan nga moyle alhamdulillah alhamdulillah وذاك المولك الغالي ولك المولز المنبال ملولي أنت ربك الماز ولك بالك digal baax ko defee maaleykum salaam soxna si macha allah macha allah yaa bàyyee ko ci conférence bi man de ci conférence bi laa jóge lu doon sa laaj man daal sama laaj mooy waaw damaa bëgg nga takk ma rek te yàlla rek tax xam nga ne moo sa jëmm ji xajul ci man muy benn xam nga ne sa jëmm ji benn xajul ci man sa jëmm ji benn xajul ci man ñaareel bi dañoo nekk ci wàccaayu koor mbëggeel ci boppam dama koy aj ba ñu wàcc te tëj naa bunt yi man de yow laa bëggoon nga takk ma rek te yàlla tax ah, xanaa nga seet ci bilaal bi nga xam ne <laughs> mu ngi fii rek ci jàkka ji waaye ku mel ne man wax dëgg yàlla man dara laa na indil ma bilaal bi kon bëgg borom kër dama bëgg borom kër te yàlla rek tax wasalakal xaw ma xool sax ci ci jotaay bi bilaal aywa asalaamaaleykum. waaleykum salaam Abu Bilal. bëgg nga wasey. bëgg nga kii. bëgg naa ko waaw. bëgg nga kii xool nga ko bu baax. wasey wasey. xool nga bopp bi bu baax. gis naa léppam. lépp. ah sukran sukran. wasakar. ana yebul ana yebul ma fi mushkil ana yebul asa. ana ana yebul ana yebul asa mushkil eh, la bintu sana. wasakar bëgg nga. kon indi indil ndawtal bi génnal jox ko loo may. nga ne. maa joxe can li mi ngi ak kër ak Mercedes. maa ko can teen nii. nee na cinq mille francs la. cinquante millions yi sama jëkkër ji laa ko jox. ma fi à cinquante millions. wasalaamaaleykum. ak caabu Mercedes. قلت ربي وكازك المال وزين لا لا تكلم في هذا ملك الولا كال والله والله الظاهر وزك المال